ñu ngi nuyu waa ami international Sunugal 24 di leen ziar yéen ñëpp ñi baaxoo suñu kër gi ngeen ci ànd seen mbokk Oustaz Habib Socé waaye di jaajëfal ñi nga xam ne topp suñu émission actu diine ñi ci ànd suñu mbokk euh, Sidi Mahfous euh, macha allah mbokk yi ñu am nag euh, mbégte ak kontaan tey ñëw ci benn waxtaan rek boo xam ne laante biir la fàttali wante comme ni mu baaxoo di amee ci àdduna bi yëpp ku gis lu xam ne baaxul ci sam réew. nga jëm ci wax euh, ndax dafa bokk ci li nga xam ne mooy soqali am réew mooy doxal am réew muy lan boo gisee lu yàq dem ca wax ci ñu xool na lañuy def ba saafara loolu waaye ñi si war a jóg ñu jóg ci taxaw ci te mu bañ ci wax kase yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngaloon ci benn xadis mu wax mu ne man raa minkum munkaran fal yughayyir bi yadi fa lam yastatia fa bi qal fa bi lisaani fa lam yastatia fa bi qalbi mu ne ku xam ne gis nga loo xam ne lu yàq la lu yàq société la waaye lu yàq àdduna la mais lu yàq sa réew mi la mu ne jógal wax ci rawat na loo xam day yàq ba yàq sa diine mu ne jógal nga wax ci boo ci waxee loolu yàlla mën na def saafara ba ñi war a dégg dégg ko man ci def ay ay yitte pour loolu man fi jóge mbokk yi loolu mooy lan am lu lu doy waar lu xam ne xewoon na fi xewati fi dama ne encore xewaat fi mu nekk loo xam premièrement bi rek waroon nañ ci mën a taxaw ba xewaat ñëpp gis nañ liir yi nga xam ñoo lakkoon fee ci Linguère mu metti woon lool mbokk yi ñi gisaat encore ndaw si nga xam moo doon àkku si fale mu demee nam demee mu metti lool encore waaye ñu gisaat lu mat fukki bakkan ak bu ak benn ñëpp am ñu naan sax ëpp na loolu ñu décédé ci ay xale yu tuuti yu xam ne ëllëg mën nañoo nekk ñu xam ñooy gàddu société bi ñu lakk ba jeex wala boog ñoom ñëpp ñu faatu ci nee nañu courant la ak lu mën a doon rek en tout cas mbokki benn nit benn nit mu lakk ba dee rek beneen affaire la rawatina ay nit yu bari bu ñu fàttali ko ci ci taarix mooy ci histoire dañuy xool ki nga xam mooy mooy Firawna gis nga lu mu bon bon bon bi mu demee ba nga xam ne société mu ngi jàpp rey ngir bañ ku ko folli ngir bañ ku ko folli dégg baax li may wax Firawna daf doon bañ ku ko folli ñu ne ko xale bi la war a folli mi ngi waaju juddu mu commencé xale bu judd rek di góor mu jàpp rendi mu jàpp rendi parce que boobu am na doole boo xam ne boo jàppee rendi bu ne rendi leen ñëpp rendi te kenn du wax mais fàtt na ki ko ëppoon doole muy borom subhaanahu wa taala mi ngi toog di ko xaar di ko déglu mais li saafara mbir moomu dañoo dem ba benn jamono mag yi dëkk ba ñoo dajee ak lu ñu ragal ragal firawna lu ñu ko jox jox cër ak respect dañoo mujj daje waxtaan ak moom ne koy sang bi yow mi nga xam ne yaa moom yaa ñu jiit si lépp waaye jàppale ñi gis nga lii ngay def nii boo ci continuer dinañ dem ba réew mi dootul amati benn góor te réew bu amatul góor ëllëg beneen réew bu ñu song dinañu dinañu demine mbokk yi nañu xool nag tey réew mu xam ne xale yi nga xam ne ñoo war a yor ëllëg société bi ñoo war a yore ëllëg réew mi ñoo war a yor ëllëg suñu économie lépp luy dox ci réew yi ëllëg ñoom ñoo ko war a yor ñu jàpp xale yooyu di leen rey yamatuñ ci rey xale yooyu mais ñu dem ba hôpital yi nga xam ne xale bi juddu ci hôpital jàpp nañu foofu la ëppee sécurité génnagul ay waajuram jotaguñ ci ñi bàyyi ba xale yooyu lakk su doon benn yoon ñi mën wax ne erreur la bu jàll mais am na amati na amati na ah kay dëgg la ñu ngi réagir ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci hôpital bi mais dama ne loolu dafa yéex dafa am lu jiitu woon loolu lu xam ne moom moo waroon alquran dafay jàngoo ne xoso xizrakum xuzu xizrakum gis nga dangay jël say préparation mbir mu départ da ngay jël say préparation da daaw bi mu amee fële ca Linguère dañu waroon a préparer jël suñu préparation ba nga xam ne ëllëg hôpital bu mu mën a doon xale bu fa nekk wala malade bu fa nekk da nga am sécurité bu xam ne yii demee nii yëpp mën na fa ñàkk mais li jaaxal ñëpp tey ñuul ci soow mi mooy heure bu ñu demee ba nga xam ne lu ñuy wax élection dëkkmal na dëkkmal na rek jiyee yi commencé am mais lan moo xew lan moo xew loolu tax ma commencé leen ci Firawna walla ne moom moo ëppoon doole ñëpp te pouvoir ba mu yoroon kenn dootul yor pouvoir bu toll noonu waaye gis nga bi muy jàpp xale yi ren di xàqu xale yi moo ko dal ba xale bii ko folli ci année ba la juddu mais moo yar xale bi ci pay ci palem ba mu màgg léegi nag képp ko xam ne yaa ngi nekk ci opposant di opposé wu di jàpp ay xale di rey jàpp ne loolu mooy tax nga falu yaa ngi nax sa bopp di sacrifier jàpp ne mooy tax nga falu yaa ngi nax sa bopp wala boo faloo tam dootoo def lenn lu baax ndax boo boo faloo criminel criminels day gën a bari waaye képp ku nekk au pouvoir bañ wàcc tax ngay sacrifier ay xale di jàpp ay xale di rey jàpp ne mën nga ko nës-nësal ba kenn du ko xam xamal ne yàlla ngi lay gis te loolu du la tax a falu mukk du tax sa gouvernement continue waaye day tax nga daanu kon yéen ñaar ñëpp am ngeen ci part de bu ñu opposant nag mooy ñun ñii ñun ñëpp bu ñu pouvoir encore mooy ñun ñii ñun ñëpp waaye lu nekk nag dafa am ku nekk ca kanam ku jiitu opposant bi bu ñu waxee am na ñu jiite parti bu ñu pouvoir am na ñu xam ne ñoo nekk ca pale ba ñoo jiite mbir mi kon nag ñooñu nañ sol seen dàll ñu bàyyi xel ci li jóg ci xaalis bi ñuy jël di koy yàq di ko tasaare fu nekk nañ ko dugal ci hôpitaux yi nañ fa dugal matériel yu baax mais nañu xool Maroc nañu xool beneen réew ak beneen réew fii la ñuy jàngee fii lañu jàngee demal université bu Dakar c'est Anta Diop ay marocain nga fay fekk ak ñeneen ñu jógee yeneen réew di fi jàngalan xam-xamu médecine léegi réew mi ku feebar ba jaaxle sax dañ naan yóbbu leen ko Maroc wala yóbbu leen ko feneen te ñoom ñu jàngee fii ci réew mi et pourtant bi ñu jàngee ba dem seen i njiiti réew ñoom ñoo jóg taxaw jox leen matériel yu doy jox leen jumtukaay yu doy ba ñu mën a respecter seen liggéey ba ñu mën a euh, def seen liggéey ni mu ware léegi nag bu nekkee da nga ne yow ci réew mi fi xam-xam bi balee xam-xam boobu nga jàngee fi ak ñoom pare dugg sa biir hôpital lala fa teg xamuloo ko la nga war a liggéeyee amuloo ko matériel bi bi nga war a liggéey amoo ko waaye salaire bi ñu la war a fay ba nga mën a jël sa. temps ci ci malade bi nga yor amuloo ko encore lan moo fay des lan moo fay des li fay des mooy il faut nga jéem a seet leneen il faut nga jéem a seet leneen mbir mi ñun la du keneen ñun la ñun waa réew mi ñoo ko moom ñun la il faut ñu jéem a nag wax ko ku mën a wax wax ku mën a jëf-jëf ku mën a tamit génn sa poos def ci génn sa poos def ci waaw alquran karim bam ñuy wax dafa waxoon ne zahara alfasadu fi lbarri walbahri bi ma kasabat aydi nnaas borom subhanahu wa taala nee na li ngeen gis muy yàq ci géej gi ak ci jéeri ji mu ne du kenn ku dul yéen réew mu nekk la fa yàqu ña fa dëkk ñoo ko yàq <coughs> afwan réew mu nekk la yàqu ña dëkk ñoo ko yàq waaye ña dëkk lañuy yàq lépp mënta yàquta état seetaanul dama ne réew mu nekk la fa yàqu ña fa dëkk ñoo ko yàq waaye lañ yàq mënuñ ko yàq te état seetaanul te li jëm ci wàllum état lépp loo ci laaloon tey jii ni balaa ngoon ñu jël si la waaye li jëm ci wàllum population bi jëm ci askan wi nga xam ne kuy ku nekk ci état bi ñoo la fal loolu ñu koy sàgganee ba jéey di ci am da ci amaat da ci am da ci amaat ba kañ ba kañ lañ jëm ak moom da ngay dem ci yeneen réew yi nga gis xale bu xam ne bu juddoo si la ko euh, euh, si la ko ñi nga xam ñooy gouvernement am commencé di toppatoo di ko bàyyi xel ci côté bu nekk nag di ko préparé ci côté bu nekk fii nag xale bi judd nga war ko pare pare seetaan ko ak ay waajuram su mën a seetaan ko mooy bi mu duggee nekk ci hôpital ndaw si amul lu mu lu mu fayee pour mën a mën a dem pour pour accoucher ñu ne ko boo fayee foofu ngay foofu ngay accoucher mu dem kurkuri ba am andi bi mu amee ba andi mu accoucher ñu war ko toppatoo di ko sànni ay baat yu naqari waaye yemuñ ci loolu dem ba seetaan ay doomam ñu lakk ba jeex kon alquran nee na zahara fasaadu fil barri wal bahri waaye bi maa kasabat aydi naas Sénégal lii fi yàq ko yëpp ñun ñoo ko yàq waaye yàq gi nag kenn jiitu ci suñu njiiti réew yi parce que ñoom ñoo war a jug li leen askan wi jox ñu delloo ko ci waat ci askan wi liñ leen jox ñu delloo waat ko ci askan wi mais tey ku ñu fal balaa suba balaa ñu wax euh, un mois nga tabax nga nga nga am immeuble wala nga dawal 4x4 bu xam ne boo doon liggéey cent ans doo ko am parce que xam nga ne mënoo ko am ña la fal nga xam ne yàgg ñoo ma bokkoon nekk ca quartier ba ñi dàqale liggéey foofu man la foofu dàqale jàng foofu nga leen di romb gauche droite mu leer la ne lii nekkul loo liggéey parce que bu doon lu ñu liggéey ñoo lay ëppale est-ce que nun la war a demee déedéet déedéet nit buñ la falee da nga war a xam ne yow fi ñu la fal pour nga liggéey la mais bu bu saako bi nekkee ca kaw ñëpp nekk ci suuf bëgg cee jot ñun la yéegal ca kaw boo demee bëtal saako bi ci suuf ndax mu wàcc ñëpp man ci am nga yéeg ba ci kaw bëtt ko ci kaw di lekk yow kenn loolu du yëfu gor loolu du yëfu gor laa wax xaalis bi ñu koy basar parce que ci réew mi chaque jour nga dégg milliards ay milliards yi dul jeex mais chaque jour population bi di gën a ndóol di gën a ñàkk est-ce que loolu moo tax ñu fal leen déedéet loolu taxul ñu fal kenn kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de lam waxoon ci xadisam mooy irhamu man fil ardi ko man fi sama nee na ku xam ne yàlla sedd na la benn pouvoir walla kàntan gu mën a doon ba tax am ñu xam ne yaa leen féeti kaw ci ëpp leen doole mu ne ñu fexeel loo man defal yërmande sa digganteeg ñoom buñ ne yërmande nag mooy nit ki lim moom àq bi moom jox ko ko jox ko ko paa koo gis rek xoolee ko bët bët ne kii maa ko tane di ko yërëm déedéet ki nga yërëm mooy fexeel ba bu fa jógee bu ngeen dajee waati bul ko yërëm xam nga yërëm ak xeebel bokkut bi nga bi nga gisee nit ki mu nekk ci ci koñ bi amul afwan mu ne si koñ bi amul nga di ko xool bëtub xeebeel ne yaa ngi koy yërëm yëkkati ñaar dërëm jox ko man koo jox léegi lu mu mën a demee investir dara mën a gën si ñàkk nga yëkkati 10 francs jox ko yëkkati 50 mille jox ko yëkkati 100 mille jox ko te naan yaa ngi koy dimbale dimbali woo ko dimbali woo ko parce que yaa ngi bëgg chaque jour di ko jox lu xam ne foo ko xoolee mu sëgg te mbokk yi loolu loolu nekkul am dimbalante nekkul luy doxal réew lii doxal réew dama ne mbokk yi mooy képp ku xam ne fañ la teg pour liggéey moo tax ñu teg la fa nga liggéey fexe loolu jëmale réew mi kanam waaye nag mbokk yi du jeexal mukkuta santuma ñi nga xam ne ñooy suñu xalif généraux yi ñoo ngi leen sant bu baax leen gërëm parce que taxawaay yi ñu am ci réew mi bu fi amul mu ñaaw suñu xalif généraux yi laa wax taxawaay yi ñu am ci réew mi bu fi amuloon mu ñaaw bëgguma lim benn kilifa xalifa nag parce que bu ma xasee wax du ma dayal te bëgguma cee bàyyi kenn ndax sama sawq ci ñoom sama cofeel ci ñoom parce que Sénégal ñun ñoom ñoom lañ am waaye nag maa ngi moytu ndekuloo ñi nga xam ne ñooy mbubboo ñooy mbubboo xalifa diine yi di mbubboo kilifa diine yi di gisee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ñooy borom doole yi ngir yàq der islaam maa ngi leen avertir ne leen na ngeen moytu parce que mun leen yàq li mag ñi liggéey mun leen ko yàq li fi mag ñi liggéey mun leen ko yàq ku ci dem ba fàttali la la fal nag dem di jaxasoo gouvernement di mbubboo kilifa diine yi yaa ngi nax sa bopp nit ñi nelawuñu yonent bi moo ñu waxu mu ne al ulama umanaau diin ma euh, euh, euh, maalam yu xaalito sulta su ma jumul noonu la ko waxee ca nas ba mu ne boroom xam-xam yi ñoom ñooy ñi nga xam ne diine tey bu nekkoon luñ ne lii am mbaar la potu yi ko téye mooy boroom xam-xam yi waaye diine tam bu nekkoon jëmm dañ naan kantan li téye jëmm ja ba jëmm ja daanuwut mooy mooy mooy borom xam-xam yi mu ne waaye nag borom xam-xam yooyu fii demuñu ba gouvernement yi jënd leen. fekk demuñu ba gouvernement yi jënd leen gis nga borom xam-xam bu ko gouvernement xasee jënd yonent bi nee na moytu leen ko parce que kooku lu seytaane danse danse moo koy gën a danse parce que dina wax lu xam ne dañuy jàpp ne li muy wax islaam a tax fekk la muy wax léppoo sama tax te nag mbokk yi ñaata lobi ñoo taxaw léegi te leen taxaw lu yëpp mooy lan nu ñuy def ba daaneel li nga xam mooy diine bi fii ci fii Sénégal nu ñuy def ba daaneel diine ji nekk Sénégal ba nit ñi dootuñu faaleti ak jaamu yàlla waaye dootuñ faalet li fi li fi mag ñi bàyyi mais la ñuy xalaat mooy tojante bopp rayante fexe ba noo amee baax na te fekk du noonu mag ñi bàyyiwuñ fi loolu yonent bi salaasam jàngalewut loolu alquran jàngalewut loolu diini islaam nekkul noonu kon ku ci nekk sa bopp nga ci nekkal nit ku nekk nag yaay toog nga juge sa bopp lii may wax nii xam xam ngeen ko baax a baax yéen a ma gën a xam li may wax waaw kon nag yéen ñi nga xam ne yéenay jóg di jéem a jaxase kër kilifa diine yi ngeen lan xëcc fa benn waay jox ko xaalis bu bari pour mboola ma nekk ci gannaaw kilifa ga mu fexe ba xëcc leen bañ ànd ak yow yaa ngi nax sa bopp da yàq sa xaalis yonent bi moo ñu waxoon mu ne nit bu bu demee ba toll foofu mu ne moytu leen ko te gis nga junant bi du waxantu wa ma yantiqu anil hawa du wax mukk ci bànneexu bakkanam ñun nag mooy suñu mooy ki ñuy gide ñun kon maa ngi ñaan ñi ñu jiite fi may tëjee mooy maa ngi leen di ñaan lii di xew ci réew mi dee yu bari yi rayante gu bari gi am ngeen ci saafara te yéen yéen ko mën saafara ndax ci yéen la yàlla teg pouvoir bi yéen yàlla jox doole ji nga xam moo ko mën a saafara ëllëg bu ngeen ko seetaanee ëllëg da ngeen ko léegi yàlla subhanahu wa te seen gouvernement yi lu muy yàgg-yàgg léegi ngeen ñàkk yéen ñëpp léegi ngeen daanu yéen ñëpp kooku moom wax ko ñàkk wax moo ci yem dama ne ana Léopold Sédar Senghor ana Abdou Diouf ana Abdoulaye Wade kon nag président yow mi fi nekk tey xamal ne ëllëg dinañ nettali sa gouvernement ngal la nag fexeel ba balaa nga fi jóge rayante bi fi nekk jikko yu bon yi fi nekk fexeel na nga ko saafara balaa ngay dem imam ahmad shawqi dafa waxoon ca ca ca téeréem ba mu ne innama umumul axlaaqu ma baqiyat fa inhum zahabat axlaaquhum zahabu mu ne nit ñi li leen fi téye yëpp mooy jikko ji rafet waaye nit population bu mu mën a doon bu ñu demee ba perte seen valeur amatuñu benn jikko bu rafet mu ne ñooñu nekkatuñu benn population mais ñooñu ay bàyyi ma sax moo leen tani te dama ne kenn amul benn doole wala pouvoir ba mën a jóg saafara lii ku dul yow mi nga xam yaa njiit yow président ñoo ngi lay ñaan nag ci respect ak xorma bi nga lay bi la yàlla jox lii nang ci taxaw nga wax ci fajuñu dara nag waaye ci réew mi lañ bokk luñ gis mu yàq sañ lañ ko wax in uridu illa islah ma stata'tu ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu